yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal lool te gën a ay wéram ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko ñoo ngi am mbégte di àndaat ak yéen seen émission bi ñu duppee ëttu murit te jii ci ëttu murit ñu ko fas ko yéene amale ci ëttub murit saarix boo xam ne dundam gépp jeexaloon na ko ci liggéeyal sheikhul xadim mu di ëttub euh, sëriñ Mouhamadou Roqaya Mbacke ibnu cheikh Mouhamadul Mamoun ibnu cheikh Sidil Muxtaar euh, maam Cheikh Anta ibnu sëriñ Mbacke Mor Anta Sali ibnu bokk yi seen émission ëttu tey ñuy beral siyaar Serigne Mor Fati mi nga xam ne mooy xalifab maam Cheikh e beral siyaar eh, Serigne Saliou Mbacke xalifab Serigne Afia Mbacke waaye jagleel ab siyaar Serigne baara Touré xalifab Serigne eh, moor Fati Touré Madina siyaar yi nag bu baax a baax mbooleem njabootuk Serigne Modou Mamoun gi teg ko ci loxol Serigne Jili xalifa Serigne Modou Mamoun ak sëriñ Abo beral ab jaar soxna Daba Mbacke bintu maam Cheikh Anta mi nga xam ne tey jii moom lañuy ñuy xoolee maam Cheikh Anta di jaar bu baax a baax sëriñ Moustapha mbake mu sëriñ Abdoul Karam euh, di di fab jaar yooyu yëpp nag di ko teg ci loxol euh, soldaaru sëriñ Touba bi nga xam ne. moom la ñu delleel ci ëttub murid saalix bi di Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifa Serigne Modou Roqee ñu ñaan sun borom mu gën ko fee yàggal lool te gën a dolli ak wéram. Euh, tey jii nag ñu dalal Serigne Ahmadou Touré Serigne Ahmadou Touré. Eh, bokk ci njabootu sëriñ Mor Fati ture waaye ñun ñëpp ñu meen ko ci ëtt bi nga xam ne moo di eh, Almouridiya Almouridiya TV di fa def émission yu am solo lu jëm ci wàllu njàngale rawatina ci yoonu murit ak lu jeexitalu Seexul Xadim yi eh, tey jii nag ñu fas yéene waxtaanee koo xamante ni bii saalihaat yëpp war nañ cee mën a jàngewaat gone it war cee mën a nafaralaat nafaraat. saalihaat boobu ñu fas yéene waxtaanee moo di soxna Anta Ndiaye Mbacke di way juru maam Cheikh Anta ak bokk yooyu ma tudd soxna faati Anta ak Serigne Mbacke Anta ak Serigne Afia Anta ak soxna Anta Sëli ak ña ñu bokkal. mbokk yi ngir njëkkante ak waxtu wi damay bàyyi sëñ ma mu nuroo nuyoo su nuyoo ba noppi rek incha allahu rabbi ñu bàyyi sëriñ bi mu defal ñu ay ñaan ñu daal di nag tàbbi ci waxtaan woowu fas yéene waxtaane jàmbaar ju mag jooju nga xam ne mën na wax ne mooy laytaay bi nga xam ne lépp ci kawam la tege mu di soxna Anta Ndiaye Mbacke way juru maam Cheikh Anta sëriñ Axma bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu leen nuyoo ci ëtt bu tedd bi ci wetu sang bi di jël suñu nuyoo yëpp rek di ko joweel ci moom muy bunt bi te yem ci moom te mu jot li ñu ko rek fépp fu mu war a jàll waaye di nuyu itam mbokk yëpp di nuyu sëñ Fallu maa ngi lay delloo nuyoo itam euh, di siyaare ñëpp euh, di am mbégte lool ci jataay bi ak ki ñu war a waxtaane yaakaar naa ne ubbi nga ko ni nga ko waxee noonu la euh, royuwaay la kon boog am nañ mbégte ci bu ñu fi teewloo ci ndigal ñu teew fii ngir war ko waxtaane jërëjëf sëñ Fallou kon xanaa ñu bàyyi sëriñ bi rek mu ubbil ñu ay kàddu yu ñaan su ko defee ñu daal di ànd ak bokk yi nag ci biir waxtaan wi rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ci seen émission bi nga xam ne moom la ñu dëppee Atu Murid alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammadin nabiyil amin wa ala wa asxaabihi wa xudaamihi sawi ridwaani wa tamkiin kon nag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen waa atub saalihaat ñu ngi leen di sant bu baax ci bi ngeen daje tey di ëttu murid saadix waaye murid saadix boo xam ne nag ci saalihaat yooyu ngeen di bëgg a tudd ci la soqi ko ci la soqi ko ci ndey ci la soqi ko ci baay kenn ku ne xam na ne sëriñ Moodu Maamun ay euh, saaliha way juróom ci saalihaat yi la bokk kenn ku ne xam na ne Maamanta Njaay way juróom ci saalihaat yi la bokk moo tax ñuy wax saalihaat ndax kenn ku ne xam na maam Anta lu ko boole ak soxna jaara te soxna jaara li indi bis bii ak bis yeneen soxna jaara moo ko indi waaye la ko booleeg maam maam Anta Ndiaye xam nañu ko kon nag nu barkeelu ci bis boobu rek ma waxoon ne ginnaaw bu waxee ci kër suñ Muntaxa ba noppi du ma waxaat dara loolu xanaa jublu ci liggéey bi rek ah, sëñ Muntaxa moom ah nuyoog taalibe yi ak saafonteeg ñoom moom la tuddi liggéey suñu Tuubaa ba waxee rek mu ne mooy liggéey bi talu talu noo noppalu kon nag li ngeen ci bëgg ba tax ngeen def ko ci ëtt bi soxna roq yi Touré mi meññ suñ Modou Roqaya kenn ku ne xam na ni ci saalixaat yi la bokk moo taxoon eh, moo taxoon ki fi nekkoon ñu di ko wax Mor Lisa di bind lemp yi di bind lemp yi di bind Rokhaya Touré Rokhaya Touré mu yàgg mu ne waaw Rokhaya Touré mii li muy bind ci lemp waaw moom góor la walla jigéen mm-hmm. kon jigéen bu ñu demee bu di ko jaawale góor hmm. ah, booba salihaat la salihaat nag suñ borom da leen lu bëree bëri ci alxuraan loo xam ne sëñ bi dana ci agsi waaye bu ci agsee nag ba wax ko nu ñaan jigéen ñëpp rek ñu roy ci saalihaat yooyu ndax jigéen kat dana dem ba ñuy wax naan jigéen ju mën góor jigéen ji mën góor muy muy indi mbër mu daan ñëpp mm-hmm. kon nag soxna Jaara mooy jigéen ji mën góor moo tax mu indi mbër moo xam ne daan na mbër yëpp ba waral ba waral bisub màggalug Tuuba ak bisub màggalug Daaru saalihaat yooyu ñoo ko liggéey kon nag lu ci waay fas da nga ko am ci bis bi ak foo mën a nekk ak foo ko mën a fase foo ko mën a fase rek loo ci fas yàlla ak sëriñ bi dana la ko defal ci barkeb saalihaat yooyu kon nag ñu ngi ñaan fu ngeen bëgg rek ngeen àggale ko fa taalibe yi itam ñi nga xam ne am nañu yéene ñëw te ndigal li tax mënuñoo ñëw walla gàllankoor yi tax mënuñoo ñëw ñu ngi leen di sant bu baax te xam ne rek lu ñu nekk lu ne ndigal lee ko ëpp doole ndigalul Serigne Touba moom ëpp doole lépp te noonu dañoo fas yéene tënku ci ndigalul Serigne Touba rek waaw nun defe naa ne nun waa Daaru Salaam bu suñ suñ Muntaxa nenul sax mën ngeen a woote màggal gi te màggal ko na ngeen ko daan màggale noonu ci suñ bopp noo war a gàmtu ndax màggal yi jiitu màggal yi jiitu màggalu Daaru Salaam ba ci bisub Sëriñ Fàllu bi ba ci laylatul xadar ji ba ci bisub Cheikh Abdoul bi yooyu yépp nañ màggale war nañ caa mën a roy bu nu sëñ bi ne woon ma de bu leen neexee màggal sax ñun danoo war a ñaan ngant te ne ko doon ko danoo bëggoon a roy ñi nga xam ne ñoo nu jiitu ngir def ko àddee sëriñ Muntaxa sëriñ Tuubaa Muntaxa te xam ne la mu digal màggal yi jiitu ku ca roy itam danga am tuyaaba joo xam ne ji mooy ëpp jënga ngay am boo màggaloon sax ndax ndigal rek am solo jërë ngeen jëf asalaamaaleykum jërëjëf euh, mbokk yi kon ñoo jot a dégg kàddu yu am solo yooyu nga xam ne bàyyikoo na ci eh, soldaarub sëriñ Tuubaa yi di sëriñ Cheikh mu mel nag sëñ ma sëñ bi dafa ubbi jataay bi ci ay tënk yoo xam ne boo ko tënkee mooy doon li nga xam ne moo war a nekk waxtaan wi ndax dafa junju wax ne soxna Roqaya Touré borom ëtt bi saalihaat yooyu ñoo ko meññ soxna Roqaya Touré Roqaya Touré ma ko meññi Aminta mbakkee ko meññ Aminta Mbàkke Ibra Kane ko meññ Ibra Kane Ibrahima eh, Ibrahima Awañang ko meññi Ibrahima Awañang maam ma xarama ko meññi kon de loolu mooy toogtale ne rek kon borom ëtt bi ci saalihaat yooyu la bokk ak li mu bokk ak soxna Anta Ndiaye Mbacke nga xam ne ñoo soxna Anta ak Ibra ñoo bokk Ibrahima Awañang so eh, soxna Anta Ndiaye jur maam Cheikh maam Ibra Kani jur Serigne Modou Mamoun waaye jur itam eh, ka nga xamante ne bii jur soxna Buri mu jur sëñ Modou Mamoun waaye mu jur itam soxna Aminta Mbacke mu jur soxna Roqaya Touré mu jur sëñ Modou Roqaya mu mel ne nag kon soxna Anta Ndiaye ñu bari dañuy wax turu Anta Ndiaye Anta Ndiaye te wax ne moom buñ ko seetee ak ñi mu bokkal boo delluwaatee ca Jolof dangay fekk ne am na buur buñ daan wax bërgal ma fent bërgal ma fent amoon na ay doom waaye amoon na ci ku ñu wax aatumaan Ñang lu mel ne ka boole woon nag way juru maam ma xaram tam am ca doom ñu dugg tudd ko Mouhamed moom Aram Ñang muy muy muy muy muy tub bërgël ma fent Ñang waaye mu amaat jeneen doom joo xamante ne bii Ibrahima Awa Ñang la tudd di doomi bàjjani maam maharam nga xam ne baayu maam maharam ak yaayi awañang ñoo bokk ndey ak baay awañang moomee nag bi maam maharam jàngee ba mokkal alxuraan ba dellusiwaat dafa dem kër nijaayam jël doomi nijaayam mu tudd awañang mu taawloo ci ku ñuy wax soxna Mbacke awañang teg ca ku ñuy wax Ibrahima awañang teg ca astu Mbacke awañang ak xëri Mbacke awañang Eh, Ibrahima Awañang moomu bi mu delluwaatee moom it jàngi alxuraan ba mokkal alxuraan jàng xam-xamam ba am ko bi mu dellusiwaatee dafa delluwaat ci këram kër néegum ndeyam. nga xam ne kon da ngay xam ne sëñ sëñ sëñ gaawaan lus di bokk ak sëñ Tuubaa bokk na koog moom. Eh, Anta Ndiaye Kandi moomu nag nga xam ne mooy doomi soxna Kandi Saw ak Ibrahima Awañang mi ngi feeñ jamono ci atum 1825 ca Jolof wax nañ ne mille diggante 1825 ak la feeñ jamono ca ca Jolof. bi yàlla dogalee mu mata dal jàng dafa fekkoon ne booba Mamballa Aysa baayam daf ko féetale woon ak Ibrahima Awañang nga xam ne lu ëpp ci dundu Mamballa Aysa mii caatu maam Maharam Ibrahima Awañang ko saytu bi yàlla dogalee nag moom soxna Anta Ndiaye way eh, waajuram jox ko soxna Asta Waalo soxna Asta Waalo moom la ko tuddee ndax soxna Asta Waalo Ahmadou soxna bu soo ko jur Ahmadou soxna bu soo ak Ibrahima Awañang ak Mamballa Aysa ñoo bokk benn baay. soxna Anta Ndiaye gane àdduna ci atum 1825 ca Jolof ñu jox ko soxna Asta Waalo tuddee ko ko muy Aysatu Mbàkke mu jàngal ko alxuraan ba mu mokkal mu jàngal ko xam-xam bi yàlla dogalee nag eh, sëñ Mbàkke Mor Anta Sali dem ba war a tell ci denc samp kër yàlla dogal ne kon comme moom sëñ Mbàkke Mor Anta Sali baayam maam Habibullah gis na ne baayam bii di Ibrahima Awañang moo ko toxi moo ko yar mu ne kon sama doomi baay jii nga xamante ni mooy soxna Asta Waalo moom laa ko moom moom laa koy séddee muy soxna Asta Waalo Mbàkke di soxna Anta Ndiaye fekkoon na soxna Anta Ndiaye ñu wax ne li sëriñ bi junj jigéen ju man góor la daanañ wax ne daana jàpp lu mat téeméeri surga moom kese sàmm wax nañ ne ñetti sàmm la yoroon yoo xam ne ñoo ko daan sàmmal ak juróom yoroon na teel tool yi wëtteen nga xam ne da daan ëcc den suub di ay yére nga xam ne dafa mel ne ku yoroon benn entreprise boo xam ne liggéeykat la woon ba noppi di jigéen ju am taxawaay te xees adduna bépp bëgg ko doomi buur yi bëgg ko doomi soxna yi bëgg ko waaye mu doonoon nitug diine ku sell di ab saalihaat boo xam ne jaamu yàlla moo ci mënoon ñëpp fi may njëkk a tàmbalee yow jikko ju màgg da maanaam jikko ju màgg mooy jigéen joo xam ne sa doomi baay daf la wàcceloo jabar kooka yàlla dogal ngant am ca nga ne leen bu ko yëg moom man wàcce leen ma nga xam ne moo génne ñetti dërëmi ngurdu yi nga xam ne moom moo ko génneel boppam na leen lii bu fekkee ne dagan na fasal leen mu ko ci ñu fas ko ba noppi mu xottil boppam ay yére ne man wàcce soxnaa ma fi andi woon kon day mel ne kooku bu buñ doon seet jikko ju màgg dëgg dañ koy jàng ci soxna Anta Ndiaye moom nga xam ne moom laa doon junj say axma jërëjëf euh, sëñ Fallou yaakaar naa ne ubbi nga bunt bi ginnaaw bi ko sëñ bi ubbee ubbi bu leer jaar nga ci jaayin woo xam ne euh, noonu nga ko waxee ci jigéen joo xam ne wax nga ne léegi royukaay la royukaay la ci ndaw royukaay la ci mag royukaay la ci te ku déglu say wax ni nga ubbee da xam ne kon royukaay la ci étape yi nga xam ne jigéen dana ca jaar jigéen day gën a àdduna nekk benn mu nekk ab jigéen te ni nga waxee nii léegi royukaay la ci jigéen bu baax ndax yaakaar naa li nga wax nii ci ne eh, koo xam ne te ma ma xamal ne nag sëñ Mor ànd Sali ay jamono booba ak daara ji mu tàmbalee woon kër gi neexul te doole ji bëriwut ba mu fa demee nag bañ nangul ko euh, fekk ne li nga waxoon léegi moom jigéen ji mën góor la soxna Anta. néeg bu bari wërsëg lañ. tam barke. Euh, loola taxoon ginnaaw doy bàyyam la doy bàyyi sëñ Mor Anta Sali itam te it liñ seq ki tara tax na mu ne kon na ko ko wàccaloo sédd ko ko bañ ko ko séddee itam li tax may la royukaay la ci buñ ko seetloo buñ ko seetee en tant que ab jigéen. danaa ñëw ci en tant que soxna waaye en tant yaay mm-hmm. ndax jigéen noonu jigéen étape yooyu lay lay jaar. day nekk jigéen mm-hmm. ba yàgg mu nekk soxna. ba ci nekk way jur. Mm-hmm. ci nekk ci étape yooyu. boo ci xoolee soxna Anta Ndiaye da ngay fekk ne royukaay la ci képp koo xam ne yaa nga toll foofee moo xam yaay nga wala jigéen ju ne ci kër nga di di di sàkku ngërëm wala boog jigéen ju demagul kër nga. ne ci ron ndigal euh, loolu amee kon ñu dem ba mu ñëw ba mu ñëwee nag li nga wax tam moo ci nekk indiwaale naan ñëw na ak dooleem doole def lépp loo xam ne teraanga la ci bis bi bi lii xewee mbir yi jaar fam daan jaar ndax am na ñu fa jaar ci ay yàqkat ne leen nag ki ngeen di bëgg a jox seen doom yi yàlla dugg na fu ne ngeen bañ bañ ko ngeen di ci def lii di ci def lii ba tax walla ngante am bi mu amee yaakaar naa ab jigéen dëgg dëgg dëgg suñu tubaab di wax ci nax ju ne leen mbokk dëgg dëgg ak xarit moo gën a néew lépp luy néew waaye kii mbokk dëgg la dëgg ah, dégg nga te saalihatu boobu nga ko tuddee kii mooy mbokk mu baax dëgg al uqutu al aqu xaqan mooy kon nag mën nañ ma ñaxan kii ab jigéen dëgg mooy moom mooy soxna Anta Ndiaye ndax bi loolu amee ñu ne ah ñu ne ñëpp xam nga rek doy waar mm-hmm. waajal li ñu lépp te ba noppee xibaar ba ñëw mm-hmm. li nga wax nii mu ne kon moom na wàcc di gan gi bu kenn yëg yaakaar naa ne jigéen bu féete càmmiñam fam ko war a féete dëgg te dëggu te xam lu baax mooy def loolu mooy def loolu kon bu ñu seetee en tant que Euh, jigéen dama lay wax ne la mat na ab jigéen. dëgg la. mat na ab jigéen ki suturaal suturaal en tant que jigéen. mat na ab jigéen ab jigéen ci wolof bu ñu ko waxee mooy sa rakk ju jigéen. Mhm. wala sa mag ju jigéen. Euh, kon mat jigéen euh, li mu taxawaay bi mu taxaw yaakaar naa ne képp koo xam ne tam njëkkee nga ci sa kër càmmiñ. Mhm. Hmm? Mhm. njëkkee nga ci sa kër càmmiñ njëkk yi war ñoo xool ci taxawaay soxna Anta Ndiaye. njëkkee njëkkee. ndax njëkkee la woon. dëgg tasut kër ga. déedéet waaye da koo dundal. sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou day wax ne yaatub xolam moo yaatal kër sañ sëñ Mbacke Mor Anta Sali. dëgg la moo tax sëriñ Soy bu daan wax ne. alxuraan bu jiituwoon soxna Anta Ndiaye wasku fii kitaab bi fulaanatun dina ci am. waaw loolu sëñ Soy wax na ko ba tey Ibrahima fii kitaab bi Idrissa bi Nangam. suñu borom di wax yonent bi fàttalikul diw. nee na nag bu fekkonte ne alxuraan jiitu na soxna Anta Ndiaye. sëñ Soy bu nee na kon da ci fekk wasku fii kitaab bi Anta Ndiaye. dëgg kon dëggal li nga wax ni la kon Mariama jeex na <laughs> kon nag ci fekk turam kon léegi kon euh, euh, ngir dëggal sa wax jooju ne saalihatu la am na lu wér la euh, waaye ñu seet nekkin wi tam ci nekkin boobu mu diggante boobu nga xam ne wàcc na nekk soxna si bi ñu waxee moo ànd si moo ànd si booba li ñu ci si ma ànd si defoon na ne moom ci xalaatam rek moom xalaatoon jëm si moom déedéet ndax booba rawante nañ ci barke rawante na ci yu bëree bëree bëri ci ci wàllu social mhm. kon xalaatam jëmu ci woon bu fekkee ñëw nañ nag tam mhm. ci wàllu ba léegi jigéen boobu taxawaayam boobu euh, wëllëre gi am kóllëre gi am ak maam Asta Waalo taxan daan na ko nemmeeku ci mhm. nemmeeku ci googu nag moo tax tamit bëtam gën a donte moo soxna bu sa ñoo yaroo nag Mhm. moo maam Mor moom moo soxna jàngal na ko jeex na ndax daana wuutu soxna Asta Walo ci daara ji te booba soxna Mariama daa toll ci di jàng jeex na kon mhm. kon kon xam na ko mhm. waaye diggante bi mu nekk kër Sëñ Mor Anta Sali du gis soxna si léeg-léeg mu dem seeti soxna Asta Walo ndax kóllëre googu ak dundal googu donte maga ma nag waaye moom la ko tuddee itam ah, mu di ko seeti di ci la gis nag soxna jaar ci melokaan wi ci defin bi ci waxin ci doxin ci jukk ju rafet ci bëgg lu baax ci yiw euh, soxna Anta Ndiaye nekkul annaaniya nekkul égoïsme mm-hmm. koo xam ne dafa nga ne njariñ yeg yow rek yaa ko bëgg a yaa ko bëgg mm-hmm. waaye bëggal na ñëpp njariñ mm-hmm. mu gis ne soxna si soxna jaara kat tey xam na suñu mor Anta mu ñëwee gi suñu mor Anta Sali xam na kat mooy suñu ndax bi mu toogee moom ab rek xam na ne kii góor yàlla ngi nii te kër gi dem na ba laaj na tam wéttal mu dem waxtaan ak soxna Astawaalo ne ko soxna Bousso mi damaa bëgg gis taa fu ñu mën a wutee ngërëm ñu ànd fa wut ngërëm mais soxna Astawaalo da ko gàntal lu tax mu gàntal ko mooy dañu mën a tuddee ma yar la nga duggee kër nii nga duggee kër loolu du am sama doom dina fekki waxuma la waaye mu def dañ dafa bënn ay bëtam daf ko ne bu diine mayee sama ngor mayu ma ko effectivement nag ci la soxna Anta Ndiaye soo ko jooyee effectivement nag ngor loolu nag doy na waar yar nit ñu tuddee la ko euh, mu dem ci kër demin woo xam ni la war ci moom defuñu ko ba noppi nga jël sa doom fekk mu fekk mu fekk ko foofa loolu nag wax yàlla yombul loolu amee nag mu convaincre ko kiy wax waaw wax nañ ne eh, bokk na ci li nga xam ne ci la njëkk convaincre soxna Asta Walo daf ko ne fi nga ma daan nawee ci daara ji da nga waxoon ne ñi fi nekk ñëpp maa leen dàq arut mu ne ma ne ko gis naa ne Mariama mi moo ma ko dàq te sëñ Mbàkke daal laaj ko ko jàppale ci wàllu njàngum xam-xam. dégg nga bokk na ci baat yi mu ko convoqué ko ci la bokk moom it soxna Asuwaal soxna Aïcha tam xam ne ah, lu baax moom lu baax la. waaye problème boobu soxna Asuwaal nangoo mu war a ñëw nag ci sëñ Mor Anta Sali. mu Anta Sali ne ko xalaatee su ko. bu ci dal bu ci dal ngor gi ma ji. defuma ci yow dara awuma dara. benn benn kër gi ñaari néeg fi nekk. Mm-hmm. benn néeg fi nekk waañ mm-hmm. kër gi benn néeg waañ néeg ak kër dongo mu ne amuñu fu ñu ko dugal ak li ngor gi ma gi gi ma gi gi ma gi may lebal ba noppi nga ma naan damay jël nit di ko teg ci sa kaw te defuma ci yow dara xaarisu ko mu convaincre ko moom itam na mu convaincre soxna suwalo ba mu nangu mu ne ko léegi su ma nangoo sax lu ñu def mu tekki takkaayam jël alalam def ci jël alalam def ci jël alalam. def ci ba loolu mën a nekk sëñ Mbàkke Mor Anta Sali daf ko ne man benn kaamil laa yor boo xam ne bind naa ko ba mu agsi ci suuratu Faatiha mën naa ko àggale jox la ko loo ci boole nga jox leen ko. xam ne kon kaamilo alxuraan boobu ak alali soxna Anta njaay yooyu yëpp amee mu ne ko néeg mu ne ko mën na maa dem ci waañu. mu ne ko mën na maa dem ci waañu. allahu akbar. ñu ñett mu dem ci soxna bu subaat ci ne bu baax. sëñ Mor. topp ndigalam gis nga bu ñu wax li sëñ Tuubaa di wax wa sawjatan saalihatan tu'inu ala tuqaawal birriya mu'inu da ko dajale woon nekkoon imra saaliha daan dimbale sëñ Moor ci liggéey bi liggéey bi tasaare lislaam bi ak liggéey daan na ko ci dimbale bu baax a baax a baax a baax baax loolu moo ci nekkoon nga xam ne Euh, nekk na fi nekkin woo xam nii léegi nag bi moo bi nga xam ne dox na euh, li mu war a dox. Mhm. ginnaaw dogal suñu boroom. Mhm. ak la mu namm. ci soxna jaar bañ ak ci kër gi rek. Mhm. soxna jaara li mu njëkk def mooy nekkoo man nag yaay. du ma bokk ay. ndax yaayam la xam nga. dëgg la moom la daan moom la daan utilisé sax. waaw ko léegi. yaayam mu ne yaay du ma lay wàcc di di yan lépp. waaye yaayam ne ko waaye dañoo bokk fi soxna Anta Ndiaye ne ko dañoo bokk fii di liggéey di wut ngërëm mhm. kon nañu xas mhm. dégg nga mooy nañu tënk suñu bopp na mhm. nañu jaayante rek la la ndax ndax sëñ Tuubaa jaayante gu bees gi mu yeesal booba xëy amuñu woon déggin yooyu waaye daanaka soxna Anta Ndiaye loolu la ko waxee mooy mu ne ko man kon Euh, xas nag bu dañ ñu ko daan def bu nee suba la ñuy xare ñu samp xeej bi. sëpp su ma demee wor nangam ma demee wor yàlla bu moo ko fekkee. bu man suba dinaa xeex lu ma sama dara du ko fekkee. Mhm. loolu mooy xas moo jaayante rek lañ ko mën a firee léegi. Mhm. Mhm. léegi nag euh, mu ne ko nañ ba suba. boo ma mayee suba sa mu fàttali ko ko mu ne ko bisimilah soxna Anta wax ci. soxna Jaara moo ko ne comme yaa ma jiitu ci kër gi. tey sama wayjur. damaa bëgg nga wax xas yow. li nga fas yéene am ci kër gi. ba noppee ma ñëw. mu xas-xasam yooyee ci dinaa fi liggéey lu ma may weer ak jant. Hmm. mu liggéey ko fa am ko fa. Hmm. muy borom penc mii. Hmm. muy borom dërëm a ngërëm. ak ilimaan yi ñëpp. moom it mu ubbi kaamilam ba wax ne jam ci aaya jooju yonent bi suñu borom di wax ne yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kat mooy xaatimun nabiyyiin mu nekk bu toll lii man ma it am naa pas-pasu liggéey fi ba am. ab yonent ab yonent hmm. waaye ginnaaw amu fi nag man dinaa fi may fas yéene liggéey ba am fi asamaan soxla bi dana tiim hmm. jant bi hmm. ak weer yi dana leen ëmb. muy Cheikhul Khadim jàmbaari Sam ñi nga xam ne bi doon tudd léegi nga xam ne mooy mbër mi daan ñëpp. waaye loolu soxla si ak njàmbaaram. xoolal léegi sa sànq naa du du koo xam ne dafay bëgg a kii moo lépp. xoolal basira bi basira bi mu am moom soxna Anta Ndiaye. bas gis-gis bu sori bi ko yàlla wan. ci soxna si. ak li war a am fii. ak ni mu ko yaatalee ngir ñëpp jëriñ. Euh, jërëjëf sëñ Axma day mel ne li nga wax ci ne ñëwutoon rek ne dama koy aakimoo dama cee bëgg a jëriñ ñëpp feeñ na ci ni nga xam ne ni la ko fi soxna jaara fekke feeñ na ci ni la nga xam ne ni la ko fi soxna Faati Isa fekke ba ni ñu demee. Saalum ndax bul fàtte ne laata ñuy dem Saalum fekk na soxna Faati Anta gane àdduna fekk na sëñ Mbàkke Anta gane àdduna sëñ Mbàkke Anta ak soxna Faati Anta ñoom ñaar ñëpp ñoom mag sëñ Mor sëñ Mor Jaara kon ay doomi mag lañ waaye bi ñuy dem Saalum ba dem Saalum ba dellusiwaat kër gi nar a xat ngir ñeneen ñu fi nekkaat ndax foofu fekk na soxna Jaara wàcc ab liggéey waaye bi kër gi nar a xat xoolal lam waxaat mooy man wàcce si soxnaa ma fi indi woon te ñeenta ngi fi te dëgg ñaa ñu lay tudd keneen teg maa yeewi ma doonaat seen njëkkee nga jël kooko dugalaat ko ci biir kër gi ndax njariñ li daa bari te ku ne xaj na ci. jërëjëf sëñ Fallou loolu Lat Joor Lat Joor dafa yoroon soxna Isa Jóob mu jur ab taawam ñu koy wax Moor dem ba jamono nguur gi rëng-rëng nguur gi rëng ab naaru Cherif ñëw fa mu dugaloo ko xalwa bu ko dugalee xalwa mu ne ko sa kër gii de yor nga soxna soo xam ne biiram war na jur wëllu te yow yaa koy jur yow lam yor li fekk génn ko doo am jàmm te foog faaw mu génn kër gi mbaa mbaa gi mbaa nga daanu la nga dee kenn jël ko waaye moom kooku faaw mu jur mu ne ko ndax xam nga kan la tuddum tudd mu ne ko ah xaw ma ko mu ne ko ndax su ma dajalee jigéen yi su ma soo gisee di nga ko xam mu ne ko waaw ba mu xëyee mu dajalee jigéen yi soxna Coro euh, Maros soxna Afsa yaay sëñ sëñ sëñ si Afsa mhm. soxna Anta mhm. dégg nga soxna Faati Isa kon mat na xam nga mhm. dëgg la xam nga mën na kon léegi te moom nee du dégg du jéggi sariya bëggut a bëggut a jéggi bëggutoon a jéggi lépp léegi soxna ba amutoon sañ-sañ bi léegi nag euh, ci loolu amee waar koy wàcc kan moo ñemee denc soxna yu buur soxna su buur ah caaxaan nag kenn ñi waaye naan rayub na waaye foo koy saraxale foo koy saraxale kenn ñi ci lañ nekk ci lañ nekk ci lañ nekk ci lañ nekk ba ba ba ba mag ñi nag ne nañ ko jox suñu mën ant ndax moom euh, xaritu sëriñu Lat Joor la te mag la bi ñëwee di ko gaaral nag la leen wax lii mu leen wax soxna Anta Ndiaye soxna Anta Ndiaye na leen nag euh, soxna Ndiaye Anta Ndiaye nag ne ko man lii ma fi indi woon rek mm-hmm. ab jigéen laay foofu rek man naa ne yollu ndànk rek génn yaatal ko mu dugg <laughs> ba tey mu dugg fi am fi sëñ Massamba xoolal sëñ Massamba liggéey bi mu liggéey wallaahi waaw te te lépp nag ci baaxug suñ an soxna Anta Ndiaye ma ne dëgg la naa ñëw foofu sëñ euh, sëñ Ahmadou xamit ne soxna Anta Ndiaye sëriñ bi daana wax ba nekkee njaareem buñ ko laajee ci yoon wi dara mu ne woo leen soxna Anta wala ngeen dem ci moom mm. njëlbeen gi fi ko fekk muj gi fi la ko fekk mm. ndax bi yoon wi taxawagut soxna Anta Ndiaye ak Serigne Touba la woon. bi yoon wi taxawagul. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax bul fàtte ne eh, maam Cheikh Anta mi ngi gane àdduna 1866. Mm-hmm. soxna Anta Ndiaye waxoon na ko bi muy gane àdduna li tax ñu te tegtaloo ci ne maam Cheikh Anta fekkanti wut ak soxna jaare jamono. mooy soxna Anta Ndiaye mooy ndaw loolu mu yónni woon ci te boobu mu tudd Ahmadou Mbacke rek. mu ne ko demal ne Ahmadou sa bàjjan nee na barki démb nga ñàkk yaay. waaye boo boo boo sàgganee bàjjan nga ciy teg. ndax yëg bu ci bu ci taxawut mën na mën na maa fekk yaayam. Uh-huh. nee nañ ci la maam Cheikh eh, sëñ Touba binde ab téere jël bant xar ko roof ca téere ba. Uh-huh. ñëw ba ci néeg bi soxna Anta ne mu xar permi roof ko ca. Uh-huh. yëg lu mu yëg ko mu a ko jàmb ko te naan ko. wax nañ ko bi mu ko jàmbee naan ko diir bu gàtt lañ dégg maam Cheikh Anta mu feeñ jamono. kon tegtaloo soxna Anta Ndiaye yàgg gim yàgg a doyloo Serigne Touba te booba sëñ Mbacke Mor Anta Sali fi. ci loolu. ci loolu eh, mu fekk kon. bi bi bi sëñ Mbacke Mor Anta Sali di di jóge Mbacke. di dem uh, Xuru Mbacke. fekk bi muy jóge Xuru Mbacke. di dem Saalum. lépp moom moom ko ànd bi muy jóge Saalum dem Pataar ñoo ko ànd. ab ab taawam faatoo Njaañ mhm. mu jógee Njaañ ñëw Mbàkke Kajoor mhm. ñoo ko ànd mhm. mu jógee Mbàkke Kajoor moom sëriñ bi ñëwaat ñëwaat ñëwaat ñëwaat Mbàkke Bawol sanc ko soxna Anta Njaay ànd ca ñu ànd ñëw Daaru Salaam mu fekke ko ñu dem Touba ci sanc ba mu fekke ko mu dem Bari Mbàkke Bari mu ànd ak moom sëñ bi dem ci géej gi mu dellusiwaat ci maam Cheikh Anta bi sëñ bi jógee ci géej gi mu ànd ak moom ci nganuk Daaru Salaam ga mu dem gànnaar mu di ko yónnee addiyam mu dem Ceyeen Jolof mu di ko fa yónnee addiyam bi mu ñëwee njaareem ci 1915 ci la soxna Anta Ndiaye soo ko génn àdduna kon lépp yoon yi fekke na ko xam nga moom jikko ju baax ci xam nga bokk ci ay turam yàkkale yàkkale waaw yàkkale yàkkale boo xam ne dimbale nit yàkkal rek yàkkal waaw yàkkal yàkk bi kat ab turu yàkk la leen ci na ci ndab ndab la mm-hmm. léeg-léeg urus lay doon léeg-léeg xaalis léeg-léeg yére ay waaw waaye lu ñu yàkkaleeti na ngalam jeex na waaw moom kat yàkk bi nakate ngalam la tey ngalam la tey looloo andi turu yàkkaleeti na ngalam nga xam ne bu la masaa di jox dara da koy def ci ab këll këll muur ko muur ko nga xam ne day nurub añ mu yónnee ci ne ko demal jiit ko sa bàjjen diw fekk na booba kooko ajo woon a takkaay bu dikkee bu nekkee ci néegam bu ubbee fekk mu doon wurus mu ne ah, soxna Anta de yàkkaleeti na ngalam ñu bàyyi turu Anta wa di indi yàkkaleeti na moo tax ma ne le kon ab yàq ci soxna Anta Ndiaye lañ ko gisee jeex na ak ceex turu ndaw dooma ma jeex na muy maam <laughs> mhm. liggéeyam dafa rëy moom soxna Anta moom liggéeyam dafa rëy kon buñu nee suñ soye bu nee na bu ko alxuraan jiitu woon ñu alxuraan tudd ko mhm. yaakaar naa li fi wane mhm. waaye nag loolu lu lu wér la su ko alxuraan jiitu woon dina ko tudd waaye nag wax nañu soxna Anta en tant ab jigéen en waaye xoolal soxna Anta en tant que yaay en tant yaay yaay joo xam ne li ñu waxoon léegi xol bu set bi nga tuddoon léegi xoolal keroog bi sëñ Mor Anta Sali di génn àdduna ak lam waxanteeg sëñ tubaa ci ne ko fee ma jëm di man yow rek laa fa yaakaar te ragal naa fa sëñ Touba jox ko garantie da nga mel ni mbott mu jóge ci dex rek tàbbi ci dex mbooyo du sonal tàngoor du la fi sonal soxna Anta Ndiaye sa sama loxo bii ci sa kaw danaa ko teg ci loxo Rasulullaay <laughs> eh, soxna sa Anta soxna ant fekk mi ngi toggaloon laax bu mu doon wét sëriñ bi ñëw nuyoo te waxaguñ ci bisimilah mu toog dégg wax jooju mais xoolal ni mu teelee soññee maam Cheikh Anta ci sëriñ bi ak sëñ Afe sëñ Afe njabootam gépp la boole njabootam gépp ñu mu jox leen mu tël leen soñ sëñ bi leen kii kat du moroom du nawle du mag mhm. waaye sang dangeen ko jox seen lépp te topp ko ñoom ñu déggal ko waaye damay xool foofu nag xol en tant que yaay joo xam ne way jur wu jigéen lépp luy njariñ tey njariñal say doom tey ëllëg loola doo ci seet ak kujje doo ci seet ak kujje doo ci seet ak kujje mais da nga koy dox nañ ci war a doxe moo na ne booba kat kii sama doom yi sama doom yi nangama sama waaye waaye musta xool bët boobu sëñ Tuubaa déedéet musu ko xool bëtub lu dul li ko yàlla do li ko yàlla doomale mu doomale ko mm-hmm. kon te tey kooku fekki lépp tëj moo tax keroog 1915 boobu ngay wax keroog bi nga xam ne maam Cheikh Anta ñaadam ñaadam wutu sëriñ bi mu ne ko xanaa xanaa bàjjan nga may tàggee mu ne ko waaw mu ne ko soxna jaara jaar na fii jëm teqale nee na ba soxna moo sëñ Mor Anta Sali génnee adduna léegi tegewut bët ak moom na rus na koo gis te soxna Anta yaay fekk di dund soxna si jaar na fii léegi jëm teqale mm-hmm. nee na ba sëñ Mor Anta Sali génnee adduna léegi rus naa gis sëñ Mor Anta Sali te soxna si fekkiwu la ilaha illallah eh, jërëjëf jërëjëf eh, sëñ Ahmadou jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñu topp xam naa ne seen émission ëttu eh, day mel ne fii mu toll képp rek lañuy suñu technicien di xamal ne jataay bi mi ngi signalé wax ne waxtu wi jot na kon sëñ Ahmadou yaakaar naa ne dañoo duggoon ci biir géej bay tolloog tefes gi di ci waaj dugg rek ñoo xamal ñu ne nag jant baa ngi waaj a so. loolu loolooy lu wiir mhm. ndax bu ñu jëloon soxna Anta Ndiaye ak insaaniya rek. Mhm. ak nite. Mhm. yitte googu nga xam moo ne ci jàmbaar ji tey bëkk dem bi nga nee ma nañ dajee ci maam Cheikh te boobu laa ji dama ne maam Cheikh Anta ak nite rek nite nite al insaniya nga xam ne nga xam ne insaan baatu insaan nga xam ne alxuraan tudd ko cinquante six fois inal insaana la yàqa la kanoolun la yooyu mu ci indi xëy mooy tey nit nite ni ko ko yàlla teggile ba nekk nit ku nite te di ca googu nag dañ ko doon jànge ci soxna Anta kon ba so Anta waxoon naa ko ci njëlbeen état bi yi soxna di jaar jigéen di jaar yëpp da cee jaar te bu ci nekk royukaay la ab jigéen royukaay la. wallaahi leer na nañ. Mhm. soxna soxna royukaay la. Mhm. yaakaar naa leer na mhm. royukaay macha allah. kon boog ñuy dellu sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal sëriñ bu baax moom mi taaral jataay bi ñaan yàlla gën guddul fan yu guddul fan yi bu baax boole kook euh, wér ak tal ci nga ànd ko sa kilifa yeeg Cheikh Mountakha mm-hmm. ànd na ñoom liggéey bi te euh, yàlla gërëm lépp asalaamaaleykum wa rahmatulah suñu fal ñu ngi lay sant bu baax jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf euh, sëriñ Ahmadou Touré jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun dañu seetaan seen émission bi ñu duppee ëttu murit tey ñu dafa ko ci ëttu murit Sadex di ëttu sëriñ Modou Rokhaya euh, feggoo ak jàmbaaram ji nga xam ne moo di soldaaru sëriñ Touba di sëriñ Cheikh Anta Mbacke mu sëriñ Modou Rokhaya yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a dolli ak wéram ñu ngi leen di joxaat rendez-vous ci beneen numéro ci soxna Anta Ndiaye Mbacke seen bokkum taalibe Fallou Galassi li ma nekkoon ci micro bi feggoo woon ak Serigne Fallou Fall ci wàllu machine bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.